parce que dañu am bettel biñu gissé mu guéné ab communiqué euh, di wax né ñi ngi jappalé ki nga xamante ni sénégalais la don am comportement bo xamné bu ñak teggin la ci ancien président de la république loolu nyom wone rek moy ñom république faale wuñu république faale wuñu Sénégal faale wuñu tarix ak taarixu Sénégal bi nga xam ne dañ ko way ci àdduna bi yëpp ndax jàpp naa ne euh, dafa tegginuwul ancien président de la république nga xamante ne nii dafa représenté Sénégal yëpp ba tey jii mu nekk ci kaaraange Sénégal am loo xam ne liggéey na ko ci Sénégal muy le président Macky Sall tey ab sénégalais. am comportement bu ñàkk teggin comportement boo xamante ne nii amul worma comportement boo xamante ni ñoom ñii nga xamante nii tey ñoo nekk ci bopp réew mi noonu la ñu def ba tey ñu jox leen réew mi parce que loolu mooy wane ne ñoom fulaalu ñu république fulaalu ñu li nga xamante ne nii moom mooy Sénégal fulaalu ñu tarixu Sénégal bi nga xam ne dañu ko euh, woy ci àdduna bi yépp tey jii doon nañ xaar ci état bu Sénégal Nous sommes d'abord solidarisés ci ancien président de la république Nous condamné propos à comportement bu ñak wormo bi nga ni amna ko militant ministère des affaires étrangères qui di génné ab communiqué xam nga lolu limuy rek nous politique politicienne ñak worma parce que lool rek la ñu gis ci ñom ñukay def yépp et japp naa tay ji li nga xamné mo waron doon seen yitte moy sénégalais yi dé ci bitim réew nek ay ndaw sénégalais yi nga xamné ñi ngi leen di ray bitim réew Sénégal yi nga xamante ni am nañ ay jafé jafé bitim réew je pense que politique étrangère d'abord fofu lañu wara ba paré nak jox worma Sénégal parce que ni ñuy doxalé japp naa ne bu ñu continuer dinañu isole Sénégal ci àdduna bi yëpp